waaw combat boobu nekk na combat bu bu bu metti parce que li tax combat boobu metti dama naan à 100 pour cent combat bi day metti ci Modou Lo li tax combat bi di metti ci Modou Lo Modou Lo xale bi daf ko yàgg laaj yàgg ko laaj pendant des années fu mu ko fekk di ko ërtal Modou Lo ko ci mbapat xale bi bëgg fayeeku loolu ñu dem tey boo mu natt dooleem yaakaar ne war na mën a bëreek moom Modou jël roi des arènes bi bëriwul ak keneen ne Ama Baldé lay bëreel Modou am na fa mu teg combat waaye Ama tamit am na fa ko jaral jaral ba nga xam ne ne gëm na ne day daan Modou Lo waaye nag du nekkul làmb joo xam ne bu yomb làmb ji yombul ci mystique yombul ci doole yombul ci xam-xam yàlla làmb ju metti la bu diis bu mettee nekk noonu ku yaakaar na làmb jooju non da ngay jël cent cinquante wala cent pour cent jox ko Ama Baldé jël cinquante jox ko Modou Lô nax nga sa bopp. làmb jooju su ma doon joxe tey damay joxe cinquante cinquante. Ama pour man poids arrangé wu ko ci làmb jooju parce que Modou Lô boo amee poids boo ñëwee da yóbbu à l'usure ba nga jeex mu daan la dem sa yoon da nga ko xool ci combat mook Balla Gaye Balla Gaye indiwul poids ci combat bi dafa ñëw indi forme bëreeg moom xeex moom daan ko dem yoonam Modou Lo kuy bëreeg moom tey ci ci ci cadre làmb doo ko may diggante une minute deux minutes làmbam yëpp foofu la parce que boo ko mayee ba mu xalaat dootoo ko daan mbër dafa mbër yu mel noonu mbër yoo xam ne soo leen mayee ba ñu ba ngeen songoo ba tàqale ko boo leen dellusiwaatee noonu ndar da ngeen di dee mais doo ko daan. li fa mën a am bari na bu ñu jàppante. bëggalu ma ko bëggul ma ko ci Ama Baldé parce que Ama Baldé dafa nekk mbër boo xam ne euh, euh, du xeex encaisseur la nag mais du xeexkat Modou boo xoolee dafa boole ñaari dafa mën xeex mën encaissé bugguma buggoon bugguma jàppante bu yàgg boobu ci Ama Baldé noo bëre bi ci kaw lay nekk fu ko nit ñi yaakaar ne si suuf na day dañuy dem ba wàcc suuf bëre du yegg foofu bëre bi si suuf lay dëgg diggante ndiggali ak xeex bi ci kaw foofu la ba foofu foofu foofu moo nekk seen bëri. ku gën a gaaw loxo su ma doon xool tey dama naan Modou loo moo gën a am moo gën a gaaw loxo ci xeex parce que da nga koy xool ci combat moo Balla Gaye ba ko Balla Gaye jëlee lu mu lu gaaw gaaw ci diggante mooy de une minute dóor na fa Balla Gaye ay uppercut yoo xam ne keneen ku mu doon yow tey say mbokk jël si waaw. làmba jooju bu ma doon moom tey dama koy yen Modou Lo doo ko diisal làmb capital boo xam ne capital la non doo ko yenu na ko def comme làmb ak moom guy gi guy gi ba mu ñëwee amaa dafa yenu làmb guy gi ñëw oyofal làmb ji mais gis nga na moom làmb ju mel noonu da ngay jël làmb ji yen ko ki nga xam ne ne non moom moo yor couronne bi yow yaay jëli da ngay jëli rek dafa am ku yor nga bëgg a foqati ci loxoom non pression warul am foofu. da ngay dal neel sa supporters yi xoolal nañ toog nañ yëngal ci kaw nga bërëng si suuf loolu mooy làmb jooju ko yàkkamti ci mystique doo ko seetaan parce que ñoom ñaar mystique jaral na leen lu ne ku ci nekk da ngay jaamu mystique waxuma ne ñoom mystique moo leen di jaamu ñoom ku ci nekk da ngay jaamu parce que dañuy teg làmb foo xam ne ne fële rek fële rek làmb war a tegu làmb boo koy teg danga koy teg fa mu war a tegu boo ko tegulee fa mu war a tegu rek làmb ji bas mbas te bu la mbasee loxo dem dem gémmi làmb jooju non di nga ci gis xeex di nga ci gis bëri waaye du yàgg làmb jooju non du yàgg man maa la wax fii làmb ji boo amee deux minutes trois minutes ci la yem mooy mooy mooy diire làmb ji mais bu ko weesoo làmb ja neexatul après match ni lay diggee rek wala wala victoire par abandon jeex na. waaw xam nga revanche boo xam ne la euh, tey jii waa Pikine waa pikin yëpp a bootu ci ginnaaw Ama Baldé pour mu daanal leen Modou Lo parce que boo seetee nag Modou Lo daf leen xaw a sonal tuuti dafa sonal boor boobu tey jii mi ngi dawal ci Eumeu Sène moom Ama Baldé di jëlali ko revanche mi ngi dawal ci Balla gay magam bi nga xam ne couronne bi ñàkk na ko yooyu posé wu na dina posé wu ci ci Ama Baldé waaye tamit Modou Lo na xam ne nag mu jëlee mu jëlee couronne bi ci ci ci ci ci euh, Eumeu Sène xëy suba ñëw Ama Baldé daan la non kooku moom na wax xalaat leneen lu lool loolu naka làmba ji jarul tout jarul ko lépp jarul ko biir jarul ko biti parce que bu la xale yàggee topp joxoo ko joxoo nga dem ba jël dara doo ko doo ko ne maa ngi lay jox kon booba da nga koy ne nag non maa mën nit boo ko mënee da koy duma nit boo ko mënee doo maslaa moom ci làmb man su ma la mënee ci làmb rey la duma maslaa nit loo ko mën rek wan ko ko. combat boobu war na am sécurité bu bari bari waaye nag ñaari mbër yi dalal seen supporters yi te xam ne làmb la rek. Modou Lo daan Ama Baldé du gàcc ci Ama Baldé Ama Baldé daan Modou Lo du gàcc ci Modou Lo nañ dalal seen xel te xam ne làmb ju war a am la am na pour man stade boobu ñu ko tëgg pour man ñu jëlee ko def ko defoon ko ci beneen stade moo gën stade boobu nga xam ne dinañ mën a daw ah, problème yu mën a am diggante pikin ak Géejawaay foofu loolu bu amoon tey dina nekk lu ma neex. waa li ngay yëg dafa sori parce que li ngay yëg foofu mooy. ndam rek laa yëg samay samay samay am di jàmm samay supporter ñi nga bàyyi sa kër sa njaboot ba ci say soxna ba ci say yaay làmb ji day am lu muy def parce que lu muy def mooy yëg-yëg bi ngay yëg foofu yow dong ko xam ak yàlla mais nag du di si yow parce que da nga ko tàmm bés bu ne da nga koy tàmm da ngay dem ba mujj gi habitude lay nekk ci yow boo tolloo foofu day mel ni nit ñi ñoo am pression ba yow mbër mi doo am pression pression bi ngay am mooy tey bu may ñibbi sama kër ndam rek laa war a yóbbu loolay sa protection yow ne du leneen ñu dal bu dee amaa na dal te amaa am na lu mu nëbb nag ci gars yi ci combat bi combat yële da daan wane da daan wane ay entraînement di wane combat bi liñ ko wane yëpp ay ay ay ay ay musculation rek la wane mu gis ko mu def ko Modou nag am na lu mu wane ci ay entraînement mais nag am na lu mu nëbb ñoom ñaar yëpp nañ dal te ne làmb rek mooy gaña dara kenn leen lu mënul gaña loolu làmb DK TV mooy Dakar TV people man ñaaxarañ loo aka ay Faramaren music maa ngi seetaan DK TV voilà man la Mame Fatou maa ngi seetaan DK TV Maabo Maabo jaajëf waay DK TV kon man Alaaji Bekaay Mbaye maa ngi seetaan DK TV man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV euh, man Moustapha Guèye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 voilà. yal na ngeen nekk ca kanam li neexul. DK TV.